dikkati naa caabi pale ba ci loxol Basiru Jomaay Fay critique yéen a kaay ne ma fi mu ne jiite pale ba moo dugg ca pale ba te moo fa fanaan moom bas Sud Quotidien naan kon mu ne moo jiite pale ba Basiru Jomaay Jaxaar Fay mooy président de la République bu Sénégal ni ki démb nag sàll ngaari lam tooro bur géde na ko caabi pale ba ne ko bas am yaa ko am doxalal critique yéen a kaay naan kon caabi pale ci loxol bas mu dégg son excellence doon nag locataire bu yees bu pale de la République bi réew mi Quotidien naan kon ni ki démb lañ ko daal di dalal moom Basiru Bassirou Diomaye Diakhar Faye ab porox ndoll su yees daal di ubbeeku ngir réewum Sénégal basa nga naan dees leen yar ci liggéey dees na yar sénégalais yi ci wàlluk éthique maanaam yorin goo xam ne day leer naññ lëndëm du ca am waaye tam dees na leen yar ci jub ak jubal waaye tam bëgg lool réew mii di Sénégal te naan leen lii day bunte tënkoo dees na yóbbu Sénégal foo xam ne njort na ko weesu tribune yéen kaay naan kon formé nan gouvernement gu yees moom Ousmane Sonko ma nga xam ne moo teg ak projet moom ci boppam mi ngi tënku ci loxol Diomaye kon Jomaay Sonko soo ko déggee mooy président bi ak leader am l'indépendant naan kon moom Bassirou Jomaay Jaxaar Fay daal dinay jël fonction ni ki démb te naan ga yi liggéey la woote man Jomaay l'enquête naan kon fi mu mooy doxal waat na jël na nguur gi fas yéene doxal ni ki démb na ca waatam ga Amadou Ba ñëwul Idrissa Seck ñëwul Khalifa Ababacar Sall ñëwul Barthélemy Diaz ñëwul laas naan kon bés bu dugg ci taarix la ngir réewum Sénégal bés bi la jour naan kon Ousmane Sonko mooy doublon Jomaay waaye loo ci mënti dégg Sonko mel ma tey ndax xalaatuma bàyyi Bassirou Diomaye fay Faye mii mu wéet xalaatuma bàyyi responsabilité yi nga xam ne maa ko ko wékk ma koy bàyyi muy roñ-roñeeg moom di daw ak moom mu diis lool dees ko jàppale ci liggéey bi Vox Populi naan kon moo taxit def na nañu duo diggante Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca coppax ndalu nguur ga ñoom anti système bi nag fi mu ne nag toog ci système bi turbine yéen kaay naan kon ñu jël ay dogal yu njëkk ni ki démb Mary Teuw Niane ñu daal di koy tabb ministre directeur de cabinet bu président de la république Omar Samba Ba général bu présidence poste ba mu nekkoon ñu daal di ko fay wéy di tegaat ci waxtu yi ñu jëm yéen kaay bi naan maan dees na xam gouvernement bu njëkk bu Ousmane Sonko le Témoin yéen kaay naan contact goonu ñu yóbbal ak président Macky Sall fi mu ne nag daal dinañuy dalal président Diomaye fukki at ak ñaar moom sal mu yor ko nguur gi jël na lengay nag jébbal ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye le mooy naan kon waaye tàggoo ba démb ñaaw na wala diggante ña ànd ak Diomaye ak ña ànd ak Macky ni ay gone le point ak ci naan daal dinay xamal président Macky Sall ne ko gàcce ngaalaama deesul nag mën a wax fii liste li nga fi def waaye say réalisation yow Sall buñ ko talaloon dees na law ci ay kilomètres mooy dëgg la soleil yéene kaay naan kon Bassirou Diomaye Diakhar Faye niki démb def nañ ko njiitum réew mu Sénégal moom président bu yees bi naan Sénégal fas naa ko yéene def ab dëkkub espérance maanaam réew moo xam ne nam ci boppam dañuy am yaakaar ci moom libération yéene kaay naan kon waat na ci kanamu sénégalais yi moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy cinquième président bu réewum Sénégal Sénégal ma ngay waat naan li ngeen ma dénk dees na ko téye na mu waree Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga naan sénégalais yi xam naa diisaayu la ngeen ma dénk waaye tam gravité charge yi ngeen ma dénk dinaa def kéemtalaay kàttan ba jàmm ak booloo national am ci réew mi ma fàtte sacrifice yi nga xam ni def ngeen ko ba fal ma tey kon dinaa def sama kéemtalaay kàttan ba seen yaakaar gi du yankeeku la ngeen def keroog dimanche ca ngoon wane na ni ab coppite ngeen bëgg dëgg-dëgg ci réew mi dees na ko matale sénégalais yi nekk ci réew mi diaspora dees na leen dajale ngir projet national national boo xam ni day boole waaye tam ëllëg goo xam ni Sénégal dina ci gis boppam moom président Bassirou Diomaye jaxaar Faye nga naan sénégalais yi la woon woon ni na tey jii ñi nga xam ni ay élite lan décomplexé ñoo ma yónni yàkkamti ma moo tax ci samak ay Sénégal dina nekk réew moo xam ni dina am yoon yoon woo xam ni nag day doxal yoon moom boppam moom ca gël gu yëm dana doon Sénégal goo xam ni démocratie gi dees na ko jal ca kaw gën koo dëgëral gën koo joyanti yéene kaay bi naan maan moom président Macky Sall ni ki démb ba mu jeexalee la jël roppalaan réew mi direct news naan koon moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci boppam moo ko faase discours na ba pare moom président bu yees bu réewum Sénégal waaye tudd fa benn yoon turuk sàll ngaari lam tooro yéene bi naan koon moom basa nga naan maa ngi fàttaliku ci bésug tey jii ña nga xam ni ay martyr lañu tey le seen bakkan genn ci mbedd bi xeex ba ñàkk ca seenug bakkan te la ñu bëggoon mooy Sénégal gu moom boppam maa ngi fàttaliku tey jii ña nga xam ne génn nañ ci mbedd mi tey ñàkk nañ seen cër maa ngi fàttaliku tey ci sama bés bii ña nga xam ne génn nañ ci mbedd xeex démocratie si ba am cay gaañu-gaañu maa ngi fàttaliku ci sama bés bii ña xam ne nag dañoo xeexal démocratie ba mujjee ci kaso bi lii dey dees na ko def sama mbagg ba yaakaar gi du ma sa yankiku tribune yéene kaay naan maan moom Mamadou Badio Camara njiital conseil constitutionnel ma nga naan président Bassirou Diomaye fay Faye déglul ma wax la waxtu woo xam ne yaa nga ca nguur gi te mënta ñàkk nag nguur dem balay bëgg jay doole gi nga am tàmbalee mel ni ku lay màndil xaajaloo gi tàmbalee fëgg sa buntu fàttalikul ne li am lépp loxol ca lañ war a ñaan li nga xam ne mooy sunu pétrole ak gaz bi nga xam teg nañ ci gët mu bañ a nekk jafe-jafe ci réew mi ma nga naan kon monsieur le président de la république démocratie réewum Sénégal sax mbagg la tegu jox cëruk institution yi sax mbagg la lalu àq ak yelleefuk doomu aadama seeni liberté ak seeni sañ-sañ sax mbagg la tegu te loolee boo ko daal di jëmmalee am Sénégal goo xam ne dina jub Sénégal goo xam ne askan wi dees na booloo doon benn Sénégal goo xam ne na ku ci nekk foo mën a bàyyeekoo dina neex dundee ñaan nag yaakaar xam ne askan wi am nan ko ci yow ba fal mu bañ a yankiku vox populi naan kon Ousmane Sonko man fal premier ministre ma nga naan nguurtu taxunoo jóg yéen ñi nga xam ne war nañ leen tabb ci gouvernement gi liggéey la ñu wootee loxo yu set la ñu wax la ñu diggee ak sénégalais yi faaw ñu matal ko te loolee liggéey ñaq jar ñu dong moo ñu ko mën a may Walf Quotidien nan kon Ousmane Sonko ràngoo na bu bëgg chef de gouvernement ñaabar ñaabar yi nag fas yéene tàmbalee liggéey yi yéene kaay bi naan kon ngeen war a focus nag ci urgence yi diggante xëyug ndaw yi dund gu metti goo xam ne askan waa ngi ci waaye tam bi nga xam ne wote nañ ko tribune yéen kaay nan kon dalal nañ président bu yees bi am nañu ab premier ministre nañ ko diggee woon war a fal ay ministre yu compétent waaye tam ay DG yoo xam ne appel d'offre lees leen fale la ca des mooy def kéemtalaay kattan ba sphère publique sénégalaise bi politique dootu ko ràngoo yàq ko ay DG yoo xam ne seen i compétence mooy tax ñu fal leen waaye tam njëriñ nga xam ne mënees na ko amal askan wi ña ngi leen di xaar ci administration boo xam ne du jël ko paruk askan wi jébbal ko politiciens yi leen di xaar ci Sénégal